yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak juróom ñeent yeesu def na kéemaan yu bare nanu bamtu nettali yi weesu benn ndax yéesu dafa ñëw ngir teggi fukki ndigal yàlla yi déedéet wax nanu nu topp leen ñaar ban ndigal la yéesu wax ne moo gën a mag ak ban la ci teg yéesu nee na nanga bëgg yàlla sa borom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noonu la mel nanga bëgg sa morom ni nga bëggee sa bopp ñett lu tax yéesu di lépp yéesu léeb na ngir ñi bëgg a dégg dégg te ñi dégg bañ dégg ñeent ci léebu baykat bi jiw bu baax bi lan la tekki kàddug yàlla la tekki mu sell mi na ci Macca saar juróom-ñett aaye ñaar fukk ñett ba aaye ñaar fukk juróom-ñaar bi mu ko waxee yéesu dugg ca gaal ga ay taalibeem topp ko ca saasa ngelaw lu bare daldi yëngal dex ga ba duus ya sàng gaal ga fekk booba yéesu nelaw noonu taalibe ya daldi jege si yee ko naan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 yéesu def na ay kéemaan yu bare nettali bi mu ngi aju ci ni yéesu defee ay kéemaan yu bare gis nañu naka la yéesu daan jàngalee ak señseñ bu waar nit ñi léegi dinañu jàng ay kéemaan yu yéesu def wane nañu sañ bi mu am ci lépp genn ngoon yéesu ak ay taalibeem dugg gaal ngir jàll dex gi yéesu daldi nelaw ci saasa ngelaw lu mag ak duus yu mag ñëw yëngal gaal ga taalibe yi ragal gaal gi suux ñu yee yeesu ne ko borom bi musal nu ñu ngi dee yéesu ne leen lu tax ngeen tiit yéen a néew ngëm noonu yéesu sant ngelaw li ak duus yi ñu dal ñu daal di koy déggal ndox mi ne teg ku nekk naan nit ki mooy kan ngelaw li ak dus yi sax dañu koy déggal beneen bés yéesu jàll dexu galile nit ñu bari topp ko ndaxte gis nañu ko muy def ay kéemaan yéesu yeg ci tund wi daal di toog di leen jàngal jant so taalibe yi ne yeesu mu yónni nit ñi ñu jëndi lu ñu lekk yéesu laaj filip kenn ci taalibe yi fan lañu mën a jëndee lekk gu doy filip ne ko suñu jëndoon lekk ngir ku nekk mos tuuti dina toll ci ñaari téeméeri koweñ ci xaalis benn koweñ moo doon peyoru nit ku liggéey bésub lëmm André ne am na fi xale bu am juróomi mburu ak ñaari jën waaye loolu doyul yeesu ne taalibeem yi ñu wax nit ñi ñu toog amoon na fa juróomi junni góor ak ay jigéen ak ay xale noonu mu jël juróomi mburu yi ak ñaari jën yi sant yàlla damu mburu yi mu séddale jën yi itam mu jox ko taalibe yi ngir ñu séddale ko nit ñi nit ñëpp lekk ba suur ñu dajale desit yi mu fees fukki pañe ak ñaar nit ñi waaru ci ni yeesu sakkanale ñam yi ñu ne ci dëgg kii mooy yonent bi yàlla dige ne dina ñëw ci kaw suuf ñu bëgg a jàpp yeesu ngir def ko buur yeesu xam seeni xalaat noonu mu dem yoonam te àndul kenn yéesu wax taalibeem yi ñoom ñu jallaat dex gi bi taalibe yi toll ci digg dex gi fekk na mu guddi ngelaw lu mag jóg yëkkati duus yi ba ca kaw ñu gis yéesu mu jëm si ci ñoom mu ngi doon dox ci kaw ndox mi ñu yaakaar ne njuuma la tiitaange jàpp leen ñuy yuuxu yeesu ne leen bu leen ragal man la Pierre ne ko bu dee yow la wax ma ma dox ci ndox mi ñëw ci yow yéesu ne ko kaay noonu Pierre wàcc gaal gi dox jëm ci yéesu waaye bi mu gisee ngelaw li mu tiit daldi tàmbalee suux Pierre yuuxu borom bi wallu ci saasa yéesu tàllal loxoom jàpp ko yéesu ne ko yaa néew ngëm looy am xel ñaar bi ñu yégee ci gaal gi ngelaw lu daldi dal taalibe yi ne ko ci dëgg-dëgg yaa di doomu yàlla ji fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lu taxoon taalibe tiit bi ñuy jàll dex gi ngelaw moo yëngal dex ga ba ñu yaakaar ne dinañu suux ñaar lan la yeesu def bi ko taalibe yi yeewee yeesu sant na ngelaw li ak duus yi ñu dal ñett lu tax ngelaw li ak duus yi def li leen Yeesu sant ndaxte moom moo sàkk ngelaw li ak duus yi ñeent lu tax am mbooloo mu mag topp Yeesu topp nañu yéesu ndax kéemaan yi mu def juróom lu tax yeesu am yitte ci li nit ñi lekkul woon ndaxte dafa bëgg nit ñi te am ci ñoom yërmande juróom benn lan la yeesu def ak juróomi mburu yi ak ñaari jën yi sakkanal na leen ba junni nit lekk ba suur juróom ñaar lu nit ñi wax nee nañu ca dëgg-dëgg kii moo yonent bi yàlla dige juróom lu tax yéesu mënoon a dox ci kaw ndox mi ndaxte moo yilif ndox mi juróom-ñeent lu tax Pierre tàmbali suux bi muy dox ci ndox mi jëm ci yéesu ndaxte dafa tiitoon ngëmam daldi deñ fukk lu taalibe wax yéesu taalibe yi nee te dëgg-dëgg yaa di doomu yàlla ji yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla mooy borom doole yéesu sant na ngelaw li ak duus ñu dal ñu déggal ko yéesu jël na juróomi mburu ak ñaari jën dundal ci ay junni junni nit teewul mu des lu bare yéesu jox na nit ñi ñu lekk yàlla xam na lépp yéesu xamoon na ne nit ñi dañu ko bëggoon a fal buur ndaxte gis nañu ay kéemaanam te yeesu joxoon na leen ñu lekk gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu feeñu na nit ñi waaye mënuñu ko woon a xam yéesu jox na leen ñu lekk beneen yoon dinañu waxtaan ci kilifteef gi yéesu am ci kaw rab yi ak jinne yi